appelé jërëjëf. alhamdulilah mais mais coach waaw activé micro bi coach maa ngi lay di la ziar mais coach yow tamit dafa mel ni ah duggaat nga ah, vraiment macha allah merci beaucoup ci duggaat di nga duggaat parce que mënoon nga làqatu comme yenn gars yi quoi. mais xanaa avant tout c'est le sport. et le sport c'est comme ça. il a vainqueur il a un vaincu ku gagné am ku perte. di féliciter Modou mmh. il a gagné. Il a montré qu'il a été le meilleur avec la mm. manière. Amabala n'a pas mm. démérité. Mm. Il a été très sportif et très correct. Il a perdu. Et comme on dirait que là, li ñu mën a jàng ci làmb ji nag bëri na et que Modou euh, respect pour déjà Modou Lo il a montré que il est à sa place te il a été rationnel rationnel mooy boo observé Modou Lo bi muy préparé wu ci ci làmb bi nekk ci ci nekk biti di préparé wu pour pour dem bëri ji il a fait l'essentiel il suffit comme il se doit donc nag tey aujourd'hui nag pour affronter Ama Baldé il a affronté avec la manière mais vraiment félicitations félicitations à Modou Lo il a montré que c'est un champion et il a confirmé vraiment il a confirmé comme quoi que c'est c'est un vrai champion Père Mala Père Mala la dalal la yow itam noo gisee làmb ji. di nuyu adduna bi yëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu ñi nekk ci diaspora yëpp di nuyu Modou Lo di nuyu waa bande yi di nuyu képp koo xam ne def nga ñaan maa ngi lay nuyu waaw maa ngi déglu Mourtala maa ngi ñëw ci Mourtala ba am dara ci làmb gis ci télé wala nga feeñ ci écran bu tax nga foone amul peur kon nit day ñëw ci làmba liggéey liggéey yëpp mu sangu fekk mu ngi liggéey mu ngi def ak xam yi lépp loo war a def mun nga ñëw ci làmba nga bañ a sol tàkk téere mais téere yi nga war a tàkk yépp ak yi nga war a def ak yi nga war a suul léegi li ñuy wax bu kenn xeeb sëriñ parce que maa ngi bëgg a déglu am na ñoo xamee ne ñu ngi wax foofu ñu mel ni ñoom Mourtala di wax bu kenn fay sëriñ bu kenn fay sëriñ ay dërëm bu kenn fay sëriñ dara bu kenn fay sëriñ ay millions pour mu liggéeyal la parce que loolu yépp amul benn njëriñ sëriñ boo gis rek alxuraan lay ubbi xanaa nga dem ci tuuriya nga dem ci tuuriya boo demee ci tuuriya tuur bi amul alxuraan mais képp kuy wirdi képp kuy ubbi alxuraan alxuraan ngay ubbi te lépp ci biir alxuraan la nekke doomu aadama niñ koy jàppee ci lamba ji ak niñ koy kiyee ci lamba ji bu ñu xeeb ne Modou loo deful dara dafa ñëw noonu rek koppo ndox kese yaa ngi may mu dem bu waxee digganteem ak yàlla bu waxee digganteem ak yàlla nanga nga xamee ne carrément moom li mu def kenn du taxaw nga wax ko kenn li mu wax du taxaw nit lii laa def Serigne diw lii la ma jàppale. mais saa mais saa Touba saa Touba bi nga xamee mu ngi koy topp xanaa saa Touba dafa jëlee ay ndox ak ay ak mu xotti ko def ko ay morceau morceau mu ñëw jox ko Modou Lo ay sëriñ ñoo ko ñaanal lamba ku fi taxaw nga ne sëriñ du ma ñaanal na jógee ci këram mu bañ def dara sëriñ bañ ko ñaanal sëriñ bañ ko defal dara mu jóg noonu comme ça sans loolu sans loolu deful dara mu ne bu ma kenn topp bu ma kenn sëriñ topp bu ma kenn ñaanal mu dem ci làmb ji nga xool du ñibbi këram du ñibbi këram. waaw Père yow nan nga jàngatee combat bi yow. noo jàngatee combat bi li ci bi. gisuma ci dara Modou Lo dama koy féliciter am na victoire kaw Ama yaa may dégg dama koy féliciter Mhm. yal na victoire bi jig ko ama am defet ma koy gën waxtaan ak moom di ko gën a encouragé mu gën a bokk yaa may di gën a entraîné ñàkkul dara demul fenn commencé gul dafay door moom lay ñëw nii combat bi li ma ko jàngatee Euh, man gisuma Modou loo bëre te li may wax ku ñemee rek na nga taxaw bu ñu ko waxee ci télévision senegal yëpp ma taxaw ñëpp ma wax ko ana bore bu Modou loo wone door na def na ku dellu na ginnaaw xale bi sandi na mu sandi mu laal xale bi topp xale bi xale bi arrière mu sukk ñaari bëtu ëwmam yi expérience moo war a dox foofu te su ma bu doon man la man man maay daan Modou Lo que bot bi ñorul balaa ngay bot nit bot bi dafay ñor ba pare nga door a bot nit ki munoo bot nit ba pare ndey bi lang déedéet bot dangay ngay téye loxo bi loxo ndeyjoor bi da ko war a ñaf tey yaramam bi yàpp bi yàpp yaram bi amul téere mais na tey yàpp yaramam bi yàpp yaramam bi lay téye déclencher bot bi mais munoo déclencher bot te teyloo teyloo ndexu loxu ndeyjoor nit munoo ko bot ba pare te teyloo loxu ndeyjoor wala nga téye mbakk bi kon mun nañu ne xeex nañu ñu la ama Modou Lo dem ci kawam Modou Lo sukk ci suuf yaa may dégg mu jóg ama bëgg a déclencher mbokk mbot bi bi mu bëgg a déclencher mbot bi maa ngi seetaan ak sama doom yi dama leen ne oh oh bu mu def mbot bu mu def mbot bu mu ko mbot bu mu ko mbot parce que waruloon nekk mbot. père xam naa ni fu mu toll tàng nga dama lay libéré parce que fu mu toll nii xam naa ni tàng. non baax na tànguma tànguma baax na damay wax dëgg rek. dëgg laay wax cest à xam nga man làkkat laa. mais père lamb ji da nga ko xawoon teg ci mystique yow tamit père lamb ji sëriñ bi la ci. non lamb ji lamb ji kenn wax kenn wax Modou Lo kii wax Modou Lo dafa sot sa kiiwul dara deful benn liggéey deful dara sëriñ deful ko lii wala lii ak lii nañu ne taf téere. waaw déglu ma déglu dëgg déglu ma déglu ma déglu ma père déglu ma yaa may dégg ah. waaw maa ngi lay dégg. waaw dama ne père yow sama père nga sama papa nga sama lépp nga sama xarit nga. waaw. mais lamb ji dafa mel na ko xawoon teg ci mystique amoon na paa boobu noonu doon ñaanal dubalees doomam boobu noonu daf la garanti loon victoire bi est-ce que loolu xaw la xaw la xaw la kii tuuti xaw la motiver tuuti père dara motiver wu ma da dara motiver wu ma fils dara motiver ma maa ngi def soixante douze ans la am fu ma toll nii léegi amul mbër bu ma toppul amul lamba bu ma demul li ma la bëgg expliquer mooy ñaan dafa am. non weddi wu ma ñaan am na mais yow père bi ma la jëlee keroog ci live bi sa man dégguma nga wax làmb keroog keroog dama la dégg nga sukkandiku torop ci paa bu nekk Casamance te bëggoo wax ban dëkk la ne paa bi sukkandiku ci paa ba pare ma sukkandiku ci yàlla ak yonent bi ndax yàlla lay ñaan te lim ma gisal lépp dafa leer ñaata doomu aadama yi ñaata sëriñ yi ñoo wax ci écran bi ama léppam dafa leer ñaata la yow ñaata nga xam ñaata sëriñ nga gis ñu wax ko lépp dafa leer mais combat bi dama bañ dama la ne combat bi ci diggu géew bi ci diggu géew bi combat bi foofu la ku ci taxawul li nga war a def nga war ko def combat bi mun na olbati combat bi mun na olbati ci biir géew combat bi ci biir géew ba la combat bi olbati mais père léegi yow yow li ma la laaj gisee Ama Baldé ak Gris Bordeaux ci Gris Bordeaux non day ñëw rek ma def li ma war a def rek jeex na Modou Lo daan ma loolu du tax ba ma ne ma ñëw mu Gris dem may daan merci père bëgg mais mun naa Modou Lo daan ma ba pare Gris Bordeaux ñëw ma daan ko. wuy ma papa wuy ma bëgg naa la fonk naa la ndax bu la neexoon nga làqatu parce que ku xam-xam ni sa deret moo daanu tey. non du ma làqatu nga làqatu du ma làqatu ñëw ci live bi cest à ngi lay gërëm bu maa ngi lay gërëm maa ngi lay gërëm di la sant nit ku baax nga ngi lay gërëm maa ngi gërëm di gërëm ñëpp boo gisee ma feeñ dama defoon live ak yow ma wax kon bu ma waxee du ma nëbbatu du ma nit kuy nëbbatu parce que xam naa lu ma xam gis nga làmb su ma neexee nit ñi ni ñi taxaw di wax rek di wax rek di wax rek ma taxaw di ko def mais boo gisee du ma ko def damay wax li may wax rek bàyyee ko ci loxo yàlla mais doon na ci condition boo xamee ne bu kenn toog bu kenn toog ci kanam écran ngay wax ne Modou Lo deful li Modou Lo deful li Modou Lo deful li gis nga ku ko def ku ko def boo ñëwee ci làmba ji bu ëllëg ñu suul la wallahi billahi wallahi alquran dañ koy liggéey bu kenn weddi alquran ngay wax bu kenn dem ci sëriñ sëriñ bu amulee Sénégal ñaata sëriñ walliwu la ñu am Sénégal loolu la lay laajte ba pare ñaata walliwu la ñu laaj la ñu am Sénégal ñaata walliw jaajëf kontaan naa ci yow kontaan naa ci yow yow sama doom nga kontaan naa ci yow yaa suñu papa yaa ñu uuf ñun ñëpp jërëjëf kontaan naa ci yow. kooku mooy père Malang ndeysaan xam naa ni xol bi neexul mais euh, coach ma terminer gi yow pour soog a mën a jël grand victoire eh. côté bi euh, jàngat bi nga ci def mooy est-ce que Modou moo mën vraiment Ama Baldé. non moo ko mën il a été le meilleur. il l'a battu avec la manière. il l'a battu avec la manière ku xool combat bi. xam ni Modou Lo wane na boppam il a battu Ama Baldé avec la manière là il a même pas à discuter sur tous les plans sur tous les plans donc il a été le donc ça kuy nit et kii ko ci nga xam ne am ngay bët ngay seetaan ñu reconnaît ni aujourd'hui Modou Lo a été le meilleur et il a gagné et on le félicite vraiment y a rien à dire kontaan nañ ci yow ñu bàyyi la ak sa xarit Moustapha Gueye mi ñu tuddee woon lamb ji tey jërëjëf ça bouge grand Victor grand Victor maa ngi lay di la ziar grand nga yëkkati caméra bi tuuti ñu jàkkaarloo li tax ma jël la itam keroog danga waxoon benn kàddu bu doy waa jëmale ko ci combat bi ñu bëri ne woon làmb ji vraiment Victor euh, yow vraiment gars yi nga ne amaa Baldé ci gàllaaj nga ko teg mais Ama Baldé tegu ko woon ci gàllaaj kese est-ce que Ama Baldé tey euh, ci côté yëpp la était prêt wala noo gisee làmb ji tey grand Victor dégguma la de dégguma la. micro dama ne maa ngi jégalu asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar. ñu ngi lay fay. li may jëkk a def mooy di la féliciter yow. tu as fait un excellent def nga benn promotion lamb bi. Mhm. vraiment indi nga su tous ci milieu de la lutte. ku mu neex ak ku mu naqari. di féliciter promoteur bi. teg na yëf si yoon il a une très bonne organisation boo jógee si loolu félicité ñaari mbër attention grand maa ngi baalu ak y a un mu am ku dugg ci géew bi yàq ko waaw xam nga xam nga da da félicité ñi nga xam ne ñoo ñoo ŋànk làmb ji ba pare nga félicité ñaari kay xam nga tey jii li nga waroon jëkk a wax euh, buzz yaa may def dama li ga waroon li ñu waroon jëkk wax mooy combat bi jeex na ñëpp ñibbi nañ seen kër si jàmm pour man si loolu lañ waroon commencé combat bi jeex na ñëpp ñibbi nañ si jàmm Ama Baldé a été fair play bi mu ñëwee félicité Modou ñu kottante yàlla defar rafetal léegi bu ñu jógee si loolu nga ñëw xam nga keroog dañuy waxtaan mais nit boo leen di wax du ñu déglu fi nga waxee kenn ku ci nekk day déglu li mu bëgg a dégg xam nga combat dama ne boo ko tegee ci ay sëriñ nee naa la chaque dimanche cinquantaine de sëriñ ñoom ñooy fen ñooy wax lu du dëgg gis nga tey ji li ci war a jàng mooy Modou am na lu mu jàngal mbëri ku mu neex ak ku mu naqari ñi mu àndaloon dëgër nañ bopp indi seen yëf def seen yëf mais dama dégg Khadim Gadiaga wax wax bu am njariñ sànq nee na lu fa waay indi yaa ko dem utali sa boppam mais moom utalul woon kenn dara utiwul woon dara kon nañ kan nangul moom gëm-gëmam te ñu bañ a attardé wu si papis mu ñëw wis war a keneen mu def dara nañ kan nangul méritam mooy que ne ñëw na takkul diwul sanguwul yàlla may ka kon ñun ay jullit lañ dañu nangu mérite boobu mu am léegi nag sa sànq dama dégg Père Malang mu wax benn wax il faut que ñu leeral que nit ñi di xam parce que wax kenn du ko c'est pas que ne sëriñ bind na arab bind na benn aay alquran que li mu def alquran je pèse bien mes mots ma lance fi défi ku mu neex sëriñ bi liggéey alquran amul Sénégal. Hmm? sëriñ buy liggéey alquran amul ci milieu maraboutage maa ko wax ma laas ci défi ku mu neex na lu ñuy liggéey kon ay wérda ay affaire u ay affaire u rawxaan comme ñoom ñu koy tudde mais tey man Victor li ma bett tey mooy Modou Lo am ndam concentré wuñ ci bëri bi ñu concentré wu ci aspect avant bëri bi c'est quand même extraordinaire ah. parce que mootloo Lo dafa def mootloo Lo Modou Lo dugg na ci histoire làmb tey gis nga nit ñi fi ñu war a attardé bi gis nga làmb bi Ama Baldé def na erreur Modou Lo deful erreur ki def na lii kii def na lële pour man li ëpp njariñ man tey sama li ma kontaan loo xam nga mooy la Modou Lo wan na sportif bu yi na leen sëriñ fi ngeen ko teg nekk fa. léegi au lieu que jàng ci loolu dañuy attardé wu ci ay détails ku nekk nag di jéem a défendre sa position kii war na sangu kii war na diw Ama Baldé comme bien ils ont dépensé tey ci làmb bu doon sangu diw takk mooy maye ndam Ama mooy daan Modou Lo na solo léegi ñëwal ma en deux mots rek ci combat bi no ban jàngat nga def ci ci ci combat bi techniquement la forme physique de Ama Baldé et de Modou Lo et la chute techniquement. gis nga Sénégal ñun dañu bari wax tey kenn du ne Ama Baldé taxawul kenn du ne Ama Baldé parewul mais xam nga tey jii bu mbër bëree ba daan sama classe gi dañuy takk rajo yi ku nekk di jaay xam-xam Ama Baldé daf doon bëree boo xam ne c'est le roi des arènes. ëpp ka expérience ëpp ka ay bés mag ëpp ka lépp mais tey jii est ce que Modou Lo amul dëgg si kaw Ama Baldé bi mu ko doon wax ne que sa entourage def na est ce que tey jii comme ni ko Bakary mii di waxee est ce que tey bi mu entourage des na ci ban côté ci ban côté la est ce que tey Ama Baldé ñëw na jàng na Modou Lo bi muy ñëw techniquement nga bëgg a wax waaw non tactiquement du ma ne techniquement tactiquement ok lan mooy lan mooy erreur Ama Baldé tactiquement. mooy jàngul Modou Lo parce que bu jàngoon Modou Lo foofu mu déclenché mbot bi dina xam ne bu fa déclenché mbot liy des problème de rapidité la te bu desee rapidité Modou Lo moo gën a suuput bu jàngoon Modou Lo bi ñu bi ñu jëkk gis nga avant muy dugal mbot bi xal na loxo bi pour pour téye ngemb bi foofu bu Modou Lo takkoon téere Ama dina am fu mu téye mais foofu dafa surxol loxo loxo bi loxo loxo bi rëcc foofu nag Modou àgg ko xam ne fan doon jéem a déclencher mbot bi comprendre naa comprendre naa mais grand Victor kàddu gu mujj gi ma dalal sama gars yi parce que a dugg bari nañ y a mille personnes qui nous suivent sur Instagram mais dix mille personnes qui nous suivent actuellement sur sur je le dis haut et euh, yëpp di wax coach yëpp di wax fit bi Bakary am taxaw di wax si làmb mel na moom kese la ko yàlla may ñeneen ñi des dañuy toog di wax rek duñ bëgg kenn mer Bakary moo fi toog mu wax la loo xam ne kenn du ko dingi lu li mu taxaw moo tax ma koy wax li may wax kiraaman kaati bii na laa si jiital li may wax sama diggante sama traay bàmmeel laay wax moom moo moom moo lay defal lecture boo xam ne boo ko gisee après boo demee si combat bi dina mën a toogal argumenté la waat li muy wax tey di nga dégg coach yëpp génn ku nekk di wax mais dama koy félicité di ko encouragé xoolal man respect laa koy wax fu ma toll parce que dama bëgg góor bu am fit góor du ragal jàmbaar la kon daan naa grand victoire maa ngi dégg lu bare bare bare